asalaamu aleykum ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara nangu leen ma sama ziyaara ñi ngi leen di ndokkeel ci guddi gi muy guddi gu réy gu tedd gii di guddi gi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu jamiul wara jismun wa ahmadu ruuxuhu wa afdalihim turran la de sirri wa najwa waay waay déggal waay jamiul wara jismun wa ahmadu ruuxuhu te kat wa afdalihim turran la de sirri wa najwa nit ñëpp ñëpp ñëpp yaram lañu Muhammad mooy seen ruu moo leen gën ci ndéey gën leen ci biir gën leen ci biti borom guddi googu gën ñépp muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbooleem ku fi ñëw ci guddi gi yàlla yàlla faj sa aajo yépp borom xew woo xam ni bu du woon xewam doone xewu bay xew bu xawlee war ngaa jóg dama ni boroom xew woo xam ni bu du woon xewam dooni xewu bay xew bu doon Muhammad waaye dooni xewu bay xew kon la kooku xewam boo ci jógul dafoo la war amoo jom kon fa tabaarakallaahu yal na yàlla fayal nu ki tax nu mos ci muy Sidi Hadji Malick lëg su lekkee aloom na ko gërëme coy fayal nu cheikh al xalifa fa tabarakallahu mbir mi melu woon nii demewul woon nii waaye yokku na lépp fa tabarakallah fayal nu wajur yii fi nekk ku fi indi bàkkaar yal na ko yàlla sippi ku indi tiis yal na ko yàlla teggi ku indi jafeñ-jafeñ yàlla nooy mu mel nag ni li ma bëgg a wax yépp la ca ëpp moo doon koo wax ci nguur gi wax ko ci kilifa yi wax ko ci mbirum gàmmu gi sama rakk ji sës ci mën rëkk te du ma rëkk mooy Abdul Aziz yal na yàgg doxal nu suñu yónnant doxal nu suñuy yëf ba ne nu ko bëggee ku nekk tal la ngay tal te ka tax nga tal ko talu ko yal na ko yàgg tal dina ko talaaleel nu mën a tal lii mu mel nag nii li ci des nag ca su may tàggoo ko waxtaan ci lay soog a ñëw nag kii ci des wante ma mos tuuti rek barkeelu ñeenti bayit ci mu'jizaat ñeenti bayit rek ci laa bëgg yam ñeenti bayit Anas Siise waay ñeenti bayit laa bëgg yam de alhamdulil waahidil ahadil farad المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد بقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فردا صمدا لا في شيء ولا من شيء ولا قائما بشيء ولا على شيء ولا مفتق إلى شيء ليس كمثله شيء قد يطلق المجاز فيما خير إعرابه بزيد أو حذف حراء ليس كمثله يريد المثل وكسأل القرية يعني أهلا صلاة وتسليما على أفضل الموجودات الكونية والروح المطهر أمثل الأرواح القدسية ولسانه خير الألسنة والمعجزات الباهرة والآيات الكريمات الشاملة للعلوي والسفلي والصامت والناطق والساكن والمتحرك والمائح والجامد والسابق واللاحق والغائب والحاضر والباطن والظاهر والعاجل والآجل أبا القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولهم خلقا وآخرهم بعثا وأرسالا بالهدى ودين حق lu yudhiru ala diini kulli fa qaama wa xaaja kulla fariqin min ahli lmuxaalafa bi xujajin qaatia wa baraahinu saatia wa taxadda min ajaazi juhda wa daam jihaan ila mucaaradati wa lidyaani bi suuti misli fa nakaloo anhu wa ajazuu an ijaazi bi cheyin minhu xaysu umiru walakin amra ijaaz faatuu bi suuti min misli ولما كان كتاب الله المبجل أصل كل منزل وإعجاز كل ذي ذابة اللسان المقول جعله ذو المعرفة الكمل أضواء المقباص في ظلمات الأشكال والالتباس وبهذا اقتبس أعجب الاقتباس في ذكر معجزات سيد ناس على هذا المعنى فريد زمانه ووحيد أوطانه إمام الأئمة لأوانيه قولا وفعلا بحر الشريعة والحقيقة وعلم الطريقة التي يستغنى بالله ويتواضع لله ويأخذ من الله ويعطي في الله ويتوكل على الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجو سوى الله شيخ المشايخ في الإسلام والإيمان مميز العلماء بالسودان الحاج مالك بن عثمان بمدح المسمى بقلاد ذاب في سيد خير عرب والمعجزات له تعدادها عبث معشار لعشار لم يدرك ولم يسم جيم الألوف لهذه الخلق معجزة أما القرآن فقالوا فيه عالدلم كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء اللسن في بكم والبهت والصمم ah ma wax nag ni maa ngi sant buur bi nga xam ni mooy kenn mooy kenn mooy ku wéet ka mooy aji kawe ja moo wéetoo kemmam amul wenn mel wu ñu mën a melal wala yu may lim ci yàlla fii la jaar neer a jaar ba àgg fale saar yi signifié na ko qul huwa allahu ahad qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad allahu yàlla samadu mooy ngënk la lam yalid juru kenn wa lam yuulad jureefu ko wa lam yakun nekkul kufuwan wala ahadun kenn lahu ñeel yàlla xoolal qul huwa allahu allah bépp baat ci turu yàlla yi bépp baat ci àdduna boo ci dundeew araf baat ba yàqu bépp baat ci baat yi ak bu mu ca boo ca dageew araf rek baat ba duutu am jëriñ doo ko mën a sacrifier ci leneen ba ma gis ba baatub allahu allahu mu yàlla nga dagg lif gu dogg allahu laa ilaha illa huwa hayyul qayyum laa taaxudu sinatun wala nawmun lahu maa fi samaawaati wa maa fi ardi nga di allahu daggal ma lif gu njëkk gi waay luy des lillahi mulku samaawaati wal ard nga daggeen laam ga mooy si loxo maa fi samaatu maa fi ardi mu daal sàqar ga mu des huwa allahu alxayu alqayum xam nga ni koo koy waaja de kooku muy bàkk nag araf boo daggal da ko tax a yàqu nga ni allahu mu nu ñum di allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum nga daggal yenn lif ga muy lillahi lahu mulku samawaati wa maa fi ardi nga dal jël laam ga mu des lohoo maa fi samawaati wa maa fi ardi nga dal gaa sàqar ga mu des fa muy huwa allahu xayul xayoom daalikum kooku may bàkk nag laahu mooy baatu mooy yàlla laahu mooy yàlla rabukum mooy seen boroom kooku xaaliqu kulli shay'in mooy bind lépp lëf fardan bi mu mbir mu wéet kenn wéttaliwu ko samadan mu di ngënk laa fi shay'in déet muy nekk ci lëf wala min shay'in tukkeewul ci lëf wala qaa'iman bi shay'in taxawul ci dara wala ala shay'in warul dara wala muftaxiran aajowul ila shindim ci dara hokkane waay laysa kamithlihi shay fekk nag xaaf bu mi ngi fi waaye new fi kenn du ko firiwaale laysa xa yutlaqul majaazu fii maa xuyira iraabuhu bi zayd aw xasin ara laysa ka mislihi yuridul misla wa kas alil qaryata yaani ahla ay laysa shay'un rek misluhu keef gi boo ko fi bàyyee day mel def afaam kuy nurool nuroowul ak kenn mislu gi rek lañ ci namm laysa shay'un de dara misluhu di kam yàlla boo boobu nag maa ngi sant buur bi nga xam ni mooy buur bi nga xam ni moo bind subhaana rabban xaaliqi al ardi wa samawati al ula wa ala al arshi istawa bil qahri wal ghalaba kama ala al mulki ihtawa bil ilmi wal ma'rifa mooy buur bi nga xam ni mooy bind asamaan juróom-ñaar bind suufi juróom-ñaar not ca arasham not laa wax ndax yemewul ak arash doon istawa yemoo na ala arshi istawa not na ala arshi bil qahri wal ghalaba kama ihtawa naka la làqe moom yàlla ala al mulki ci nguuram bil ilmi wal ma'rifa waaw not gi mënoot araf arash ak li istiwaa bi lan la mu ne istiwaahu fa sultaanu wa nuzuluhu fa imtinaanu wa dixkuhu fa gufraanu wa mahabbatuhu fa ridwaanu wa wajhuhu fa wujuudu wa yaduhu fa juudu wa aynuhu fa shuhuudu wa man lam yataqid haada fa sunu maabudu yemoo yàlla gi nguur ga la ci jublu rek not lépp ak wàccam mooy xéewalam bu ne yàlla ree na yàlla du ree amul bëñ njëgal gaa tax bu ne sopp na yàlla amul lu muy sopp nga dama ma tax bu ne kanam nga tab gaa tax bu ne bu ne kanam nga am gi mu amal ñépp a tax bu ne loxo ba tab gaa tax bu ne jëmm ja seede lépp te dana mën koo échappé kooku nag moo bind muhammad ma ni salaatan wa tasliman ala afdalil mawjudatil kawniya والروح المطهر أمثل الأرواح القدسية ولسانه خير الألسنة mooy buur bi nga xam ni moo bind sang bi nga xam ne ni moo gën ji nekk téef yépp ruuxu Muhammad ak amam moom Muhammad moo gën képp kuy am ak ruuxam moo gën a laab bépp ruu bu bu ñu bu ñu sellal làmmiñam moo gën làmmiñ yépp téeréem moo gën téere yépp mooy boroom nag kéemaan yi yu ndot ya ak kéemaan yu ma yu màng yooya kéemaan ya nag lil ulwi yi wa sufli yi wa saamiti wa naatiqi wa saakini wal mutaharriki wal maayixi wal jaamici wal jaamidi wa saabiqi wal laaxiqi wal gaa'ibi wal xaadiri wal baatini wa zaahiri wal aajili wal aajili moo not ci ñépp nag ñeel way kawe way suufe ku kawe muhammad la gën way suufe way noppi way wax way dal way yëngutu way yéey te mooy luy ruy ak lu way ak lu jiitu ak lu dabe ak lu fàddu ak lu teew ak lu biire ak lu bitee ak lu ñu yàkkamti ak lu teew kokkana abal qaasim sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku la yàlla bind mu jëkk ñépp mujj ñépp mu feeñale diine gi nag wa mu yónni ko ci njub ak diine dëgg nag li ñu la ngeen a feyal ko ala diini ci diine ku léppam ba loola amee nag jóg nag fa qaama wa xaaja kulla fariqin min ahlil muxaalafa bi xujajin qaatia wa barahina saatia wa taxaddaama ila ajaa sujuuda wa daa jiha ila maaridati wal ayaati bi suuti misil nee na foofee nag ci la jóge nag di dàgge ak a kontar bépp kuréel boo xam ni wute ngaa diina bi muhammad diine woo ci ay lay nag yu dog ak lay yu ay ay lay yu dog ak lay yu jolli ak gaaranteeg ñoom ci li ajaaz wa daawam ijjihay laa muaradati mu ni yéen ñépp nag dikk naa dëkk leen dëkk naa ñépp nag man muhammad ku am xam-xam ku am làmbañ wu rafet ak loo mënta amee dikk naa dëkk leen wal itiyaani bi sootin bi sili ngeen indi ma nag seen saar bu tuutee tuuti saar wu mel ni alquran wa ajazoo ñu lottu nag ani itiyaani ci dikkee bi shay'in minhi minhu haysu umiru walakin amra ajaz faatu bi suuratin mis misli faatoo na ngeen dikkee bi suuratin cis caar min misli mu deme ne alquran nakkir nakkir li ifraadin wa taadimin wa dit nawayatin wa kasatin diddul qusib faatoo bi suuratin na ngeen dikke bi suuratin ci saa su tuutee tuuti pourquoi ñu nakkilaat ko nakkir li ifraadin wa tankiirin wa dit nawayatin wa kasratin diddin qusit na nga nakkiraal ngir wéetal na nga nakkiraal ngir màggal na nga nakkiraal ngir bareel na nga nakkiraal ngir néewal na nga nakkiraal ngir màggal kii nag dafa nakkir ngir néewal faatoo na ngeen dikk bi suuratin dafa wuti wala xadja rusulun kooka màggal la ci loolu nag ci loolu nag la niitoo gan jaa yéemug niite ci tudd kéemaani muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka niitu ca laaya ja ba def bunt bi kana mooy aji néew ji jamono mooy ki wéetoog boppam mooy ki wéetoog ki yëfam mooy njiital njiit yi ci jëf ak wax mooy géeju sharia ak aqiqa mooy màndagam tariixa mooy waa di nga xam ni yastaxna billahi wa yatawaadau lillahi wa yaaxudu min allahi wa yuti fi llahi wa yatawakkalu ala allahi wa laa yaxaafu illa allah wa laa yarjoo siwa allah kooku moo doyloo yàlla toroxlu ngir yàlla lu mu jëlee ci yàlla la koy jëlee lu mu joxe yàllaa tax buy wakkiirlu ci lay wakkiirlu bu dee ragal yàlla lay ragal lu mu yaakaar du yaakaar kenn ku dul yàlla moo ki may wax kana cheikhul machaïq fi lislaami wal iman mooy sëriñu sëriñ si ci lislaam bi ak ngëm sëriñu sëriñ man nga koo nekk ci leneen zaamat ni cheikhan wala su bi cheikhin innama cheikhu man yadibu dabiba cheikhul mali cheikhul ilmi wala leneen waa cheikhul machaïqi fi lislaami ci lislaam bi wal iman wu maysil olama yi bi suudaan te mooy ku ñu jeexee ko nag ci fóori yi ci ñu ñuul kooka na alxaaji maalik osmaan mu def téere bu ñu xalaatu dahab nag mu ni wal mujizaatu lahoo taadaaduha abathun michaaru lichaari lam yudrak wa lam yasumi jiimul uloofi li haadi alxalqi mujizatan ama alquranu fa qaalu fihi addulami kafa alquran alladi yaxdu bihi alfusaha ullusni fi bakamin walbaati wasimami
والمعجزات لا تعدادها عبث معثار الإعشار لم يوثق ولم يثمن على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسبيل والمعجزات لا تعدادها عبث عشار لعشار لم يوثق ولم يثمن على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسبيل جيم الألوف لهذه الخلق معجزة أمل قرآن فقالوا في عهد الأمين على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسبيل كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء الحسن في بكام والبت والصمام على ذات له تعدادها عبث مسار الإشار لم يدرك ولم يسمع على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بصحبه
sama maam nee na wal mujizaatu kéemaan taadaaduha ak limam lahoo ñeel muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg a lim kéemaanam ak la mu def abasun pola de sama maam nee na michaaru lichaari fukki fukkéelam lam yu dëg deefu ko mën a jot wala mu sami dee fa ko mën a sàkku te kat mujiza mujiza ak irhaas ak maonatu ak listidraaj lu leen teqale waay yi wal mujizaatu ay kéemaan te addoadoha ak limam loxoo njeel muhammad abasun po rekk la soo maam nee na michaaru li achaari fukkeelu fukkeelu ba kolim loole waaye la ñu du nag deefu ko jot wala mu yusami deefu ko mën a sàkku te kat jiimul uloofi ñetti junni mujizatan ci kéemaan wala nga ni jiimul uloofi muy mubtadda li haadil xalqi aji ñee aji aji sax la ñeel aji jubal nit ñi te may muhammad mujizatan ci kéemaan amal xuraanu moo tax amaa jooju boo ko sax daa def musiba de dégg nga jiimul ulufi ñetti junni mujisatan ci kéebaan li haajil xalqi aji ñeel la aji jubal nit ñi wala nga ni jiimul ulufi ñetti junni ci kéemaan li haajil xalqi aji sax la ñeel ay jubal mbindéef yi moo ji seet ci kéemaan sallallahu alayhi wa sallam rek am na ñetti junni ci kéemaan amal xuraanu nag lu dul alxuraan ndax boo ne amal xuraanu naal alxuraan def nga musiba ay xayral xuraani laa wax moom ci boppam dong ak loolu ñuy jox nit ñi li ñuy séddee lu ñu ko tuddee ti waay lotation xaw ma ah lotation Muhammad rek ci kéemaan ñetti junni kéemaan am na ko dong moom rek fële am alxuraan nag lu dul alxuraan ñu bari lay daaneel amal xuraanu ay xayrul xuraan bu ne amaa ndax boo ne amaa da nga naan daal alxuraan amaa da nga koy woyofal ay xayru yéen a ngi may dégg Muhammad dong ak doo tansam maanaam li ñu ko sédd am na ñetti junni ci kéemaan moom dong amal xuraan lu bokkul ak alxuraan nag ndax alxuraan jox nañ ko Muhammad mu boolee taag loola waaye moom jëmmi boppam rek rek rek rek am na ñetti junni ci kéemaan moom dong am alxuraan loolu alxuraan bokkul nga ne ko Maodo alxuraan ndax moom am na mu ne waa fa xaali wax nañu addu limi juróom-ñaar fukki junni kiimaan fii alxuraan rek am na juróom-ñaar fukki kiimaan juróom-ñaar fukk kiimaan moom dong Muhammad am ñetti junni kiimaan waa juróom-ñaar fukk junni ak ñetti junni nag ñaata la ah kon kii fu ñu xamee kéemaanam moo tax sama maam ni macha allah achaari lam yu rek te nag tax daa doo abasun ba koo fa nag ba kulim nag pola kafaa doy na ma deba xam ngeen ni loolu amal xuraan léegi dégg ngeen ko dafa doy na nag alxuraanu alxuraan lëdi ba nga xam ni yax doo dina mujj alfusahaa'u way wér ña la way way way fasaaxawu ña allusunu ñi di way wér làmmiñ nga xam ne bu ñu waxee ñépp daanu dañuy mujj ñoom ñooñu fii bëkkamin ci lu wal buuti ak kukum wa simami ak tëx
wa taxdiidu aayaatin lahu mutaasiran kaman rama waajil biaari yakiin waxad dakara waxad dakara
لو متعاثر كمن رام عم وعجل بها اليكين waaw loolu it maa doo ko waxaat bàyyi nag sama laab wàññeeguma ko maa ngi ñëw wàññeeguma sama laab la sama maa waxoon ca Fakia waaye niil nii laab gi waay dama doon dem waaye niil nii ma wàññi ko waay man nag wàññi kooguma li ma leen doon wax ne amal quraanu ay xayra quraan waxad dakara al ulamaau anna mujizaati sallallahu alayhi wa sallam laa tanxasiru وأنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثة آلاف معجزة أي خير القرآن فإن فيه ستين ألف معجزة aha am na juróom benn fukki junni juróom ñaar fukki ci mojisa léegi na mojisa ci boppam ak irhaas ak maonatu ak listidraaj lan moo leen teqale إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة إن من نبي له صدر boo gisee kéemaan loo ma soon a am xar doj waag xar doj waag gëléem guy wax ak yooyu yëpp te ma su koo gis ma su ko fekke kooku mooy mucjisa ci yonante la yem wa in baana minhu qabla wasfi nubuwatin fal irhaasu sammi tatbau alqawma fi lasar ki yàlla defagul yonent nag te ma war a nekk yonent te nubuwa ga ñëwagul ya muy def nag ñu di ko gis di yéem kooku irhaas la tudd nu ko sama waxeeti fa irhaasun waaye nu ko Maodo waxeeti ci noonu yëpp bi waay oh ma gaa yi da ngeen di naawa
يا له قبل الولادة معجزات ترى أم دون ظنون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل irhaasun la wa kulle uyuni لو قبل الولادة معجزات ترى أم دون ظنون
fa irhaasun la wa kulle uyuni waay
وإسلال أوكي.
بعين في عذير إرهاس فإرهاس له كل العيون وإظلال kooku mooy irhaas وإظلال بعين في هجير فإرهاس له كل العيون سراج من أشعتي استنرنا وعين قد سرت كل العيون
soo maam nee na wa idlaalu ak eeral loxoo ñeel muhammad bi ay nin ci jant fii hajirin ci waxtu njolloor bu génnee lu mel ni parasol topp ko yiiral ko ba du to- ba du lakk ci naaj wi ah xam na nubuwati mu irhaas ba ko Xadija yabale muy def commerce la ñu xamel ni mooy waaja bu génnee moom Muhammad lu laaju tàng-tàng fekk may sura mi ngi koy repéré mi ngi koy repéré rek bu ne tëll rek lu laaju tàng-tàng rek parasol ñëw taxaw tiim ko rek mu marqué bu bëggee dem sutura ñaari garab booloo sama maam nag ni wa idlaalun ak eral bi aynin ci jant fi hajirin ci waxtu njolloor waaye fa irhaasun jant ba nag moo koy yaral loxo njël Muhammad kulal uyuni ci gépp wàll kon comme boobu amagul nubuwa boobu yónneeguñu ko ku ñu yónneegul lu mu def irhaas la tudd bu ñu la xasee yónni loo bëgg a loo def mucjisa la tudd wa in jaa yawman nag min waliyin fa innal karaamatu fi taxqiqi inda dawi nadar su fekkee dafa dikk nag ci waliyu kooku karaama la sama maam nee na ma sama maam alaaji Malick góor gi Abdou Karim lii bi mu ñëwee ci moom di jaayanteeg moom dafa dégg ni am na xale lu góor bu nekk yu bari xam-xam rek mu gis Maodo sopp ko rek benn bés nag mu ne man daal ku ma gën a ñàkk fayda ci ci ci xolam de amul kuñ ni sëriñ rek la nitu yàlla la rek ma ñëw jaayanteeg moom te nattuwuma ko jëfantiwuma ak ñoom loolu daal jaaxal na ma yàlla woo yàlla mu am juróomi gan mu ñëw ci sama maam ni ko kat am na ñu lay wut muy nañu yegg si Abdou Karim ñëw ñeenti gan ya ñëw mu toog ci wetu Maodo gan ñu toog sama maam ni nganam nganam nganam nganam ni nii ci ci kanam gi di waxtaan ak gan bi fi mu toog ci ndar mu jënoo gaal yi gaal yi laa wax ak nañu wàccee jën yi mu xool nii gis saxaar ak ña cay wàcc mu xool marché ba jigéen ñi nafa yi xaalis bi ci biir nafa yi muy jën ak ñoom muy wëleeru rek sama maam di jàmbante rek aha ana waa kër ga nangam nangam ba ñu bëgg a tàggoo nag mu ne waa kër nga taras ko abee da ngay delloo loolu mooy karaama wa in kaana min baadi al awaami suduruhu fa kannahu aqan bil maonati washtahar su fekkee nag ni ci ñennat ñi nag lañu ñennat ñu ñennat ñu daal di defi yëf daal ba gis cee yëf kooku maonatu la waaw wa ma faasiqun nag in kaana wafqa muraadihi yusamma bil istidraaji fii ma qad ishtahar su fekkee ne faasiq la nag faf safara lekk tàkkaay yi duñ ko def faf safara lekk kooku listidraaj la sanastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun jaay rek la moo tax mu ni law kaana shaykhan yatiiru fi lhawaa'i aw yamshi ala albahri aw yaakulu naar wa huwa yatruku fardan min faraa'idi llahi aw sunnatan min sunnani llahi fa'lam bi annahu kadhaabun fiimaa da'aahu laysa bi karaamatin innamaa huwa siraajun sanastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun waaw boo gisee sëriñ muy naaw ci jaww ji te daanuwul ci suuf wala muy dox ci ndox mi te diigul wala muy lekk safara te lakkul te kooke mu bàyyi benn farata ci farata yàlla yi wala mu bàyyi benn sunna ci sunna si yàlla yi xamal la muy woote du dëgg ab jay rek la du dëgg jay la takkaan yaa ngi lekk safara gaal yaa ngi daw ci géej ngenaaw yaa ngi naaw du dara bayana sunnata fal waylu liman taraka sunnata min xari saqar moo tax moo tax ñu war a ngoy gaañi waay waaye nañu ngoy waay te ngoyaalu waay waaye nañu ngoy waay gaañaa ngi waay kooku listidaay la nag wa illa fa yudaa bil ihanati boo ko tuddee wal ihaas na nga ko tuddee ihaana indahum waqad tamatil aqsaamu inda alladi ixtabar yooyu fi ne mu'jiza moo fi ne irhaas maonatu listidraaj karamatu al ihaana sama maam nag ni kafa al quranu alladi yaxdu bihi al fasaha luslu kafa doy na ci kiimaanu muhammad alquran alladi ma nga xam ni yaxdoo dana mujj bii ci alquran alfusahaau borom fasaaxa ya lusnu ñuy wér ñee làmmiñu bu ñu waxee nga daanu ñoo ma ñe danañ mujj fii bu kamin ci lu wal buutee kukum wasameeg tëx waaw kafal quraan kafal quraan luy quraanu du alquraan luy alquraan wasnuhu faalaan quraan faalaan min qaraata shay'a quraanan ida jamaatahu ñu ngi ko jële ci luxay boole aw bil qaraati naaqatu labanaha wala boog su fekkee ni yaa ngi rat sa gat xam nga boo dee rat da ngay joox indi nu mu tuddati la ñuy dékk giir indi giir gi boo jooxee mu ni xurr nga jooxaat mu ni xurr nga jooxaat mu ni xurr nga jooxaat mu ni xurr ba ba ngay am lu bari luga boobu lañ jële alquran wa sumiya bi dalika li annahu jumiat fihi alqisasu wal axbaaru wal awaamiru wal nawaahi wal waadu wal waaidu wa xayri dalik dañ cee boole qisa yi solo yi digal yi yu ñu tere yi dëhal yi tëkku yu ajudul yooyee waaw alquran nag sama ma ni ko kafal quran moo alquran est ce que boobu tur rek la am am na ñaar fukki tur ma dema banque leen seen baaraam man nga alquran tudd na furqaan tudd na tanzil tudd na hudee tudd na nooru tudd na kitaabu tudd na kalaamu tudd na dikru tudd na bayaanu tudd na tabyid tudd na mawidatu tudd na shifaa'u tudd na rahmatu tudd na xaqu tudd na mubiinu tudd na haadi tudd na azimu tudd na azizu tudd na hakimu tudd na karim furqaan quraan furqaan tanzil huda nooru kitaabu kalaamu zikru bayaanu tibyaanu mawaydatu shifaa'u rahmatu xaqu mubiinu haadi azimu azizu hakimu karimu